ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbale na Baye Djily ak per Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb rek ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax a baax di am kontante ak mbegte di janoog yéen saa su ne waaye wetuma ci benn yoon ndax dama ciy ànd ak suma papa suma xarit per Birahim Ndiaye per maa ngi lay nuyu bu baax la siyaar. waaw jërëjëf maa ngi am bisimilah rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani ngeen baal ma maa ngi leen nuyu yéen ñëpp bokk internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan wasaare <coughs> di bëgg ci yéen di leen nuyu ñëpp mm. eh, di ñaan sama kàddu yàlla na fekk leen ci jàmm eh, di ñaan ci yàlla mbas mi ne ci senegal gi ci monde bi yëpp yàlla na ko fi yàlla jële mm. waaw di kontaan trop ci toogaat ak giir mm. may nuyu waa groupe bi yëpp nag Mm-hmm. di commencé ci kilifa gi nga xam ne moo géré fii mm-hmm. moo moo ko teg ci loxo ñi mu ko géré ñëpp mm-hmm. di commencé Bachir Abdou Khadir Kaagu ñoom Adama xale yu ñëpp daal bàyyi ma kenn maa ngi lay nuyu di kontaan ñu toogaat tey wax dëgg yàlla di bég waaw ndeysaan am na solo may nuyuwaat bu baax a baax a baax euh, suñu papa euh, sëñ Fallou Diop euh, maa ngi koy nuyu bu baax Ngala Diène nga xamante ne ñoom ay nit ñu baax lañ. vraiment dañuy béggee Zeus borom Brésil euh, maa ngi béggee ñëpp Babacar borom Espagne maam Cheikh. Xaadim Diop ak gars yi fa nekk yëpp. waaw Xaadim Sey. Ndeysaan Xaadim Sey bu baax moom it mm. ndeysaan xale bu baax. dëgg la ndeysaan euh, ñoom Babu kii Italie. Mm-hmm. wax dëgg yàlla dañ may woo di ma béggoon di béggee lool tamit nag mhm, mhm. naan laa du Khadir daal vraiment mhm. ah, seen toogaay dafa rafet dañ ci kontaan vraiment ñi may woo daal bari nañ ndeysaan surtout bi ngay joxee sama numéro ba ñu jot ko quoi dëgg la ñu bëggoon ko lool nag am ñu ko ci bëggoon lool nag waaw ndeysaan may béggewaat bu baax a baax taalibi Serigne Saliou bi eh, di Pape Gueye Seydi Aji Gueye ma koy jaajëfal bu baax borom Espagne gënal ma maam Cheikh moom nga xamante ne saa su ne Moussa ni ma xeer père tey li ma bëggoon ñu waxtaanee ko mooy Euh, dañu gis euh, weer bi ñëw noonu nekk weer wu sell. waaye mm-hmm. bëri na ay nit ñoo xamante ne dañuy feeñ wala boog ay célébrité yoo xamante ni mm-hmm. soit ñii ñu ngi yëngu ci ci musique wala ñu doon ñoo xamante ni euh, réew mi xam nañ leen ay xale ñu yëkkati ndogu di ko def ci moment bi nga xamante ni mooy weeru koor gi ban gis-gis nga ci am. gis-gis bi ma ci def de mooy lu rafet la looy def te yàlla tax. Mm-hmm. looy def te yàlla tax hmm. loola lu baax la waaye looy def te gisal doom rek tax nga di ko def gisal hmm. ay doo ci am dara dëgg la njaay ay duma rek nga ci am doo ci am tuus hmm. gisal baaxul waaye am na ñoo xam ne ñi xëy na ñu ngi def euh, joxe ndogu ci ci secret boo xam ne kenn du ko yëg dëgg la parce que orange euh, maanaam yeneen surtout ngi fi yeneen kër yi joxe xaalis pour bañ a kër yi fi joxe xaalis a ngi fi am nga tey jii boo ne ah père Birahim mu ne ah seetal sa kii am na lu ma la yónnee waxoo ko ci rajo bi waxoo ko ci télévision bi te ni ñaa ngi koy jëriñoo. dëgg la ñu roowul ak dëgg ma daal di jënd samay café ak samay gerte rek sama togg samay añ. Mm-hmm. jox loolu sax lu baax la ba tey. waaye wut ca tur ngisal bu amul moo ci amul njariñ hmm. waaye loo def te yàlla tax rek nga def koo xam ne yàlla rek a tax ma di ko def hmm. te xam ne benn doogu tàndarma rek boo ko joxee ni ci ndogu rek yool bu rëy la hmm. loolu koo ci def def nga lu rëy def nga un pas avancé bu ñu fàtte ne ñun ay julit lañu dëgg la ngay weeru julit weeru suuli weeru koor eh, képp ku lu baax loo ci waaye mën a def na nga ko def te yàlla tax def te yàlla tax daal mooy li nga xam ne lii looloo am mujj dëgg la euh, père euh, lan lan nga tuddee ngistal ngistal mooy lan kuy ngistal nu muy def waa ngistal mooy looy def rek wane wane fi mu ne tey jii boo ma boo ma soo amoon benn problème bu soxla soxla benn cinq mille francs ñëw wéet ak man feneen ah man de père tey bàyyi ma kër ga dépasse ba ma koy wax waxoo ko ca kaw hmm. dañoo fa fële nga wax ma bàyyi ba ñëpp toog ma jubla tàllal biir bi ba mu laal ma wan la ma wan ko ba ñëpp gis ko ma doon la ko jox loolu comme man ni may def aadama rek waaw ma jili jox ma dara ma ci biir nit ko téeméer yaa ngi. waaw waaw maa la ko xam nga loolu tamit loolu nag <laughs> amul loolu nag ay duma rek ci am amul loolu sa dina dem te doo ci am dara ndeysaan waaw moo tax looy def hmm. def ko ci sekk rek te yàlla tax dëgg la waaw ci sekk rek xam ne ndijoor bi sax ko yëgal càmmoñ bi hmm. loolu waxin la quoi hmm. mooy looy def rek def ko te yàlla tax looy def te yàlla tax rek fay suñu borom la fay suñu borom nga ci am quoi gis naa ci ay xale yoo xamante ne ñoom it ñu ngi def lu mel ni ndogu euh, démb dem naa fële ca fils de Badlen si ki moom it def na ndogu vraiment mm-hmm. euh, invité ay xaritam mm-hmm. yemale ko ci këram mm-hmm. ñu waxtaan fa waxtaan wu yaatu euh, bërki démb dem naa ci deux ziga tamit aussi moom it def na ko gis naa ci ay xale yu bari ñoo xamante ne ñu ngi koy def ci mbëri ndaw yi mais mbëri mag yi laa gisagul benn benn yoon peer mbëri ndaw yi moom wala mbëri mbaaxu moom mbëri mag yi bokkuñu ci. ah bàkk nañ ci waaye xam nga dañ ne ñoom siiw nañu ba pare ñenn ñi koy def. Hmm. ñu ci ba dañu wut pour wut tur yokk seen tur. Hmm. am ba mooy moo tax may la ngis sal baaxul. Hmm. am na ci yoo dañ koy def pour yokk seen tur. ñu ne ah woo internet yi ki woo seen télévision yi. wasaare. wasaare. woo yeneen internet yooyu yëpp. yeneen vidéo yëpp waa télévision yi ñu wane sa ndogoog sa yooyu xam nga mooy ngis sal bi. waaye dama ne am na ñoo ñi am tur ba pare nag dañ ne jarul ñu mën ko def. parce que man am naa siiw naa ba pare ñëpp xam nañ ma. Mm-hmm. dégg nga Balla Gaye mu ko def Modou Lo mu ko def ak yooyu yëpp boo yokk tax jàlla lu baax la dégg nga waaye tamit jaru ñuy waay télévision yooyu parce que yàlla tax ñuy def. Mm-hmm. loolu tax xëy na ñoom mën naa am ñu ngi koy def te wane wuñu ko nag. Mm-hmm. loolu laa yaakaar mën naa am mën nañ ko mën parce que def lu baax jiili. jarul jarul jarul yëgle. defal lu baax rek ka nga defal lu baax xam na ne yaa ngi koy defal lu baax. yàlla mi tax nga di ko def xam na ne yaa ngi def lu baax. waaye te ay bon la rek la. Mhm. ay bon point yoo xam ne ëllëg si biir. Mhm. dégg nga fa mu lay jariñoo. Mhm. dégg nga foofa la njariñ am solo. fa fa lay fekk foofa la njariñ di am solo. waaw. loolu rek la. xëy na mbër yu mag yi ko deful tamit ñenn ñi xëy na mënuñu ko. amuñu mooy yi. dëgg ñenn ñi am mooy yi te defuñu ko. xëy na léeg neexul ñu am moyen te di ko def it mën naa am ñu ngi koy def ci secret. waaw. moom daal laa gis quoi. ndeysaan mu nekk loo xamante ni am na solo trop. Euh, ndax démb rek gis naa ay fondation yoo xamante ni ñoom it ñu ngi yëkkati ay ndimbal di ko di ko di ko yóbbul waa daara yi mhm. raw taalibe yi ñu ngi koy yëkkati di ko dugal ci kër yi ñu ngi koy yëkkati di ko jox ñi nga xamante ni mhm. euh, ñoom ñooy néew di doole yi weeru koor rek lañu war a jëf loolu wala dañu saa yu weer wi jeexee dañ ko war di continuer waaw weeru koor xam nga weeru barke la weeru tuyaaba la weeru def lu baax la hmm. waaye toujours la war a doon ci ku ko man Mm-hmm. waaw ki ko mënul nag parce que alquran def na woon laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa mm-hmm. yàlla dafa ne man teguma kenn lu mu àttanul waaye mm-hmm. ki ko mën toujours lu baax fu mu toll war na koy def te daara yi waruñu xaar ba koor ba koor ñu di leen dimbali déedéet daara fu mu toll dafa waaj ndimbal parce que daara tollooguñu fu mën a dem ak boppam dëgg la waaw ah, daara parce que sëriñi daara yi bu ñu dégloo man mii dañu xam ne li ma wax dëgg la parce man mi wax yow ni samay doomam yëpp samay sët yëpp internat daara la kon tey jii dégg nga daara toujours dafa laaj ndimbal fu mu toll dañ ko war a jàppale di ko jàppale. Hmm. parce que sëriñu daara bi dafa toog benn place di dimbale xale di leen jàngal. Hmm. mënta wuti mënta lijjanti ji. dëgg la day xëy nekk ci xale yi. Hmm. kooku tey lépp ko fa war a fekk. waaw kon tey bu ñu xaar ba koor rek jot ñu di ko dimbali déedéet. ko mën a dimbali da nga ko war a dimbali foo mu toog foo mu dem nga xam ne bu xëyee mu ngay occupé xale yi. dégg nga ci yar bi ci teggin ci njàng mi léegi nag mu feetoo yow bi nga xam ne yaa ngi du jënd say soxla bàyyi fa sa doom yooyu itam ngeen fexe d' abord daara ji neex. Mm-hmm. waaw. loolu am na oustaz ay daraja man mm-hmm. sama doomu fa nekk mais tubaarkàlla damay gis biir yooyu ndogu yu baax lañ fay yóbbu. Mm-hmm. waaye ndogu yooyu ni ma ko gisee. ak ñoom saali bu sa ak ñoom sa ñoom ñëpp tey ji war na law nag war na dëkk. ñi ko mën nañ koy def muy dëkk nag moo gën. waaye di ko soreel daal gënul. waaye nag nit buy def na def lu mu mën rek. waaw. bari na ñoo xamante ne yàlla suñ borom may na leen xéewal mm-hmm. damaa xamul dañoo xamul bunt bi ñu war a jaar wala ñoom dañoo bëggul dimbali daara yi waaw non xam nañu sax buntu daara di lu baax ku ne xam nga ko mm-hmm. lu bon ku ne xam nga ko àddina ku ne xam nga lu baax ku ne xam nga lu bon def joxe nag mooy moo jombul mm-hmm. sama benn grand ndeysaan ma maa nga sa jóob ñoo nekkoon poste yàlla na ko yàlla yërëm xare ko dama daan wax ne joxe li muy metti metti bokkal ñaanal yàlla bokk ci ñiy joxe rek joxe joxe yombul Mhm. tab jikko bu baax la waaye yombul. Mhm. waaw waaye ñëpp xam nañu def lu baax baax na. Mhm. def lu baax di yëkkati sa alal di def ci daara yi def ci comme ni ko waa Sénégal boobu def. di teg ay jox ay vingt millions benn élève bu ñu def concours alxuraan gagné ci nga jox vingt millions ak biir màkk ak lu ne. loolu alxuraan ci kanam rek alxuraan moom loo ci def rek sa bopp nga defal. alxuraan. loo ci def rek sa bopp nga defal. xam nañ yoon bi de. joxe moo yombul rek. waaw. léeg nga gis koy saraxee. ñaan bu ci nekk paasam daal tas weccet wi tànn yu xonk yi joxe doo gis mu jox yu weex yi wala mu làmb ba gis yu euh, bii yi. Hmm. teg ko de côté jël cent franc yi joxe. loolu koy def waaye sarax bi ci gën a doon. Hmm. tey jii ngay ne sarax nga ne ngir yàlla mu di cinq mille wala dix mille jox la kooku xam nga ne ñaan googu bal la. wallaay bu dalee kenn mënu koo téye bal la ñaan googu bal la. Hmm. Abdou Khadir loolu bal la. père xam naa ni nga ni nga cofeel bi nga am ci daara bëgg gi nga xamante ne bëgg nga ko alxuraan mm-hmm. barki mu ñu xool xale bu ndaw dëkk Kaolack mm-hmm. euh, concours alxuraan bi nga xamante ni si ni ko defoon na ko mm-hmm. mu jël raaya gi yóbbu ko Kaolack euh, seetaan nga ko seetaan naa ko ci télévision wal fajir ba mu jeex léegi si defee maa ko déglu ba mu jeex moom la ñu invité woon mais tubaarkàlla ba mu jëkkee tar rek bi ma ko jégloo d ñu ne région Kaolack bokk rek laa ne xam naa ne xaw ma koy gaje waaye du sori. Hmm. ba ma ko déglu mu wax rek laa du sori. Hmm. ma xam ne mu ngi ci tuwaar kàlla. Hmm. waaye nag alxuraan dëkk bu Cheikh Maulana Ibrahima Niass dëkk. ah dëkku alxuraan. nga ku ku fa ku fa champion du monde alxuraan dëgg la dëgg dëkk bu mel noonu dëkk bu mel ni Touba dëkk bu mel ni Njaareem. ah dëkk bu mel ni Ndar. dégg nga yooyu dëkk yooyu ak du mel ni Louga. ay dëkk yooyu ay champion du monde génn fa alxuraan. Mm-hmm. champion alxuraan daal monde génn fa kooku du bett kenn. Mm-hmm. waaw yàlla nañ jéglaayam yàlla nañ njëriñu Sénégal yëpp nag yàlla nañ njëriñu monde bépp. xale bu ndaw ay onze ans nga mokkal ci alxuraan bi mokkal xam nga ne bu jàngaatee onze ans kenn ko raw. déedéet. tubaarkàlla. ndeysaan moom moom xale boobu euh, mu jël première mu nga dëkk Kaolack. waaw ka jël deuxième mu nga dëkk Diourbel. waaw waaw gis nga ko Diourbel li ma la waxoon gis nga Diourbel tamit. Mm-hmm. xam ngay diw fu ni fan sëñ Mor Mbaye Cissé fu mu ne yow leen ko man xam naa ko bu baax. Mm-hmm. sëñ Maodo Mbaye Seeta bi ba yëngu ci mbir fu ma dem dafa daan ñaanal sëñ Abdourahim dem waa kër sëñ Modou dem yooyu maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di ko teg mu jox ci wax Safa dem mu nuyul ma ñëpp mm-hmm. euh, kii euh, sëñ Cheikh dem mooy xalifa ba léegi mm-hmm. dégg nga xam nga ne foofu jo foofu dëkku alxuraan la sëñ Modou Lamine Diop sëñ Matar Diop mu Abdourahmane Diop papa doomu Abdourahmane mu ngi dëkk fii ci ci ginnaaw nii rek ci ginnaaw CTO këram nii Abdourahmane Diop maa ngi koy nuyu de xaasa ak la sama lépp la sama mhm. sëriñ la sama lépp la mhm. foofu dëkku alquraanu karim la fa mhm. dëkk alquraan dafa euh, maanaam dafa sax waaw kooku bu fa première génn deuxième génn fa lu ne mën na faa génn ndeysaan moom mu nga tudd El Hadji Cheikh Dia waaw Cheikh Dia ah. moom noonu la tudd euh, moo jël deuxième bi dëgg la ñuy ñaanal rek waajur yi nga xamante ne ñoo jël seeni doom dugal leen ci daara lépp loo xamante ne sàkku nañu ko ci mm. wala bëgg nañ ko ci yàlla na ko si borom defal defal na ci lu kawe seen jot parce que ñu ji mm. di fête maa ngi fi ñëw mm. ñi ñu tànnoon yëpp quarante quelque deux personnes la xam nga quarante et un personnes mm-hmm. waaye raw jiitu dafa mënta ñàkk dëgg la ñoom ñëpp ami point kenn xam nga lu ñu rey mm-hmm. ay virgule la ñu rawantee ay virgule dëgg la maa ngi ko doon déglu sànq ay lu tuuti la rawantee mm-hmm. ay njuum te ndaw ndaw wala benn lonk goo mën a defee mu ñaar nga wax ko benn. ak yu hmm. mel noonu rek yu ndaw dawaan yooyu rek. Hmm. lenn nag moom xam naa ne man tiis na ma ci. Hmm. lu mel noonu tey concours alxuraan yu mel noonu gisuma ci Oustaz Alioune Sall gisuma ci Mbacke sa Mbacke Sylla. Mbacke Sylla waaw ku mel noonu ak ni mu mel alxuraan mel ci moom. ak ni mu maîtriser cadre bi. war nañ leen invité ci yu mel noonu. dëgg la may sàkku la prochaine fois bu ñu dégloo suñu kàddu yi. Mm-hmm. nañ ciy boole ku mel ni Mbacke moomu. nañ ciy boole ku mm-hmm. mel ni Saliou Sall. Mm-hmm. Alioune Mbaye ñooñu dañoo bokk ci alxuraanu karim. waaw ay nit alxuraan lañu. dëgg la boo gisee ñi muy dalal ak fi mu ne nii nga xam ne Mbacke eh, ku yàlla may ci alxuraan. la boole ko ku Saliou Sall nag. ak Sall Alioune Mbaye maa ngi leen nuyu de loolu lépp dama ko seetaan tey bi ma leen ci déggul mu xaw ma manqué lool nag. waaw. daaru ci bu dee su ma koy dégg. Euh, Oustaz Alioune Sall tax ndax dama koy dégg avant a fay dem wala ma koy xam mu ngoog am na sax hmm. Mbàkke am naa doomam boo xam ne mokkal na maa ngi mu ko wax samedi la war a hmm. ko wàlla ñun ñëpp amiin yaa rabbi ñu ko amoon it ñu am jokkaat suñuy sët mokkal parce que man am naa sët boo xam ne bii daa ngi koy wax maamam léegi hmm. am naa yaakaar ci na mu ngay jàngal mooy wàcc na ndeysaan mooy wàcc na tubaarkàlla mu ngi muraaja ah, mu ngi révisé pour mën a tari. ndeysaan ci bu sa la nekk. Hmm. ak sama beneen sët boo xam ne sama taawa ko jur. Hmm. kooku moom it xaajal na kaamil bi. ndeysaan sant yàlla rek. Hmm. waaw ndeysaan. waaw àddina daal bëgg lu baax daal moo am solo la yàlla yàlla xiiral jiiri ci ñuy bëgg lu baax amiin yaa rabbal bëgg lu baax ak di ko sabablu xam nga bëgg lu baax yomb na waaye sabablu ba mooy jaf dëgg la njaay waaw foo fekk rek gel jéem a dox ci lu baax di wax ci lu baax loolu mooy tax am lu baax dëgg la Njaay yàlla yàlla sax ju ñu dox ci lu baax rek lu baax amiin amiin te yàlla jubbanti jëma jégal ñu suñuy njóob te na ci yoon dëgg la mais alxuraan moom mhm. euh, képp ci jaar doo ko rëcc mukk ci àddina mhm, mhm. jërëjëf Père Birahim euh, mbokk li ñu amoon ci waxtu euh, jot na xanaa dañuy jaajëfalaat bu baax a baax Père di la tàggu di la jaajëfal bu baax waaw jërëjëf nga ñaan ci yàlla yàlla bu muy suñu mujj toog rek parce que yow toog ak moom njariñ nga parce que wax dëgg yàlla sama doom nga sama lépp nga wax dëgg yàlla. Hmm. di ñaan si biir yàlla yàlla def ko ci kanam. amiin yàlla yàlla yóbbu ko ci kanam ba ki ko ki ko créé. Hmm. yàlla lépp lu mu ci yootu ci ndam rek yàlla na ko yàlla defal. dëgg la Ndiaye ba duggee ba lu baax rek laa fi gis. Hmm. lu baax laa gis ngeen di ko def di góor xale yi sawar lool. ñoom kàggu ñii. ñoom Adama. ñoom Basir. ñoom Ousayn ñëpp xale yi ma fi doon. Mm-hmm. yow moom tubaarkàlla vraiment ku bëgg site bi nga gis naa tamit ni nga ciy sonne pour affaire bi dem ci kanam doo tax xam lu dara foo ñu dégg ne woo nañ la muy guddi bi bëccëg bàyyi nga lépp dem taxaw te loolu ku koy def ci liggéey bëgg nga bi dox dëgg la am de dëgg la amoo guddi amoo bëccëg amoo bu ñu la yéene rek bàyyi nga sa lépp dem foofu wallaahi ah woo caméraman yi topp ak yow ànd ak ngeen dem mm-hmm. loolu kay koy def yaa bëgg nga liggéey bi dox ndeysaan waaw ah. jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke amiin jërëjëf Père Birahim kàddu yi am na solo lool. mbokk yi ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ci ci ci weer wu sell wi di leen ci baaluwaat ak di leen mm-hmm. baal àq di wax ne fukki fan yi njëkk yi jàll na eh, ñu ngi jëm ci yeneen fukkeelu fan yi ñuy ñaan rek yàlla na suñu borom nangul ñu suñu koor. Mm-hmm. weer bi buy buy dem yàlla nañu fi bàyyi yàlla nañ fi gën a mën a yàgg. yàgg koo fekkee yàgg cooy féete ñi nga xamante ne dañoo feebar tëdd ci hôpitaux yi hmm. yàlla na suñ borom fëggaat seen bopp bañ delluwaat ci kër yi ñi nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal ñoom it yàlla na suñ borom génne te buñ fa génnee yàlla buñ fa dellooti di jaajëfalaat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqalikoo hmm. ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu la am ba jërë ngeen jëf ndaanaan laa foo jaar fafanaa mëne dama mën ci bii mën ca mën ci boor ak ci yëley boor nu roowu mag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma yor si